salaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV ginnaaw ba ma leen nuyoo di am contentement ak mbégte jano ak yéen saa su ne di leen fas yéene indi li gën a fas si bopp xibaar suñu làmb laataa loolu nag damay nuyu ñu ma fegool mel ni Mbaye Babacar nuyu naa la. jërëjëf Ndeye fay naa la bu baax a baax a baax wante tamit ñu ngi nuyu bu baax a baax ñëpp ñu ñuy topp fii ci Leewtoo TV amati mbégte ak contentement wante Ndeye Mbacke sama xarit bi tey fi nga génn faaw ma wax ko macha allah sa marron baax na. lënd bi la alaal lënd bi la dañoo tàng Assane Waalo jërëjëf Ndeye Maguette maa ngi lay nuyu di am mbégte jàkkaarloog internetu Leewtoo TV. bëgg nañ la bu baax ci loolu la ñuy ñëw lundi 25 janvier 2021 ci ki ñu njëkkee nag mooy Fatou Boy Bambara denc nañ ko samedi passé fee ca armeeru Yoff Ndeye Mbacke ni nga ko waxee noonu la suñu papa Boy Bambara génn àdduna vendredi passé toll woon ci juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñett ñu denc ko foofu ci armeli yoof mu nekk tiis ba nga xamante ne bii daanu na ci kaw axlu làmb euh, ñu koy jaale bu baax a baax njabootam wante di ko jaale axlu làmb yëpp mu mel ni ministre des sports moom tamit yëkkati na ay kàddu njaal jëlee ko ci président de la république président Macky Sall jëmale ko ci axlu làmb yëpp rawatina njabootu kii di suñu papa Boy Bambara euh, soxnaam si mu nekkaloon tamit di Ami Collé Dieng euh, nee na bu booy Bambara nit ku baax la woon wante tamit ay relation yu rafet moo doxoon digganteem ak booy Bambara. dëgg la ni nga ko waxee noonu la Alioune kamara ñu gën ko xam ci booy Bambara. ginnaaw bi mu génnee àdduna vendredi bi passé journal bi nee na denc nañ ko sa yoof sa samedi bi passé bi 15 heures tegee quelques minutes bi ginnaaw bi mu génnee àdduna nag journal bi jox na kàddu Matar Ba Matar Ba moom nee na c'est une triste nouvelle euh, perte Boy Bambara boobu ni mu ngi jaal euh, ay mbokkam mu ngi wax également que ndaw yi war nañu topp ci moom ndax royukaay la woon ginnaaw loolu tamit journal bi jox na kàddu jabaru booy Bambara ki nga xam ne nii moo doonoon soxnaam ci ay jamono ginnaaw bi seen divorce boobu ay entre ay relation yu baax lañ doon tenir nee na Boy Bambara ba mu nekkee ci ndëndam dafa amoon humilité ku yaatu woon la woon et jiitalu ko woon. di ko ñaanal yàlla xare ko aljana. allahumma amin dañuy ñëw ci arène nationale Boy Niang 2 Tapha Tine technique staff force ki nga xam te ne mooy Katy Diop livre leur quatre clés. Kati Diop ñëw na ci mooy ci ñaari mbër yëpp. Amadou Kati Diop ñëwal ñu ci combat bi nga xamante ne bii Leewtoo production moo ko taxawal di dox ci diggante tafaatin ak euh, Boy Niang 2 di combat ba nga xamante ne bii amateur yi moom rek la ñuy xaar ndax jàpp nañ ne combat boobu Leewtoo production taxawal mooy dàq ci combat yi wante Amadou jóob dafa ñëw ci euh, ñeenti ponk ya nga xamante ne bii euh, ci làmb la bokk muy li nga xamante ne moom mooy xeex. wante ñëw na ci li nga xamante ne bii moom mooy technique waaye ñëw na ci force waaye ñëw na ci li nga xamante ne bii moom mooy estaf wante Amadou Kati Diop li ñu mën a jàpp ci ay waxam nee na Boy Niang moom xeexam da koy teg ci yoon ñu ne mu ne mu ne euh, Tapha Tine kenn nattablewul ne dafa mën a xeex moom tamit wante nee na Boy Niang bokk na ci ay fooram riñaan Assane dëgg la mbay Bakar mbay Babacar ni nga ko waxee noonu la Kati Diop moom la journal bi dalal muy décortiquer combat Tapha ak euh, Boy Niang comme ni nga ko waxee noonu la nee na bagaar Tapha moom ba muy door mu nangu loolu xeex mais dañuy dem ba si biir mu changer stratégie commencé di xeex nee na léegi ko dàq xeex ci làmb ji bëriwul nee na Boy Niang également moom. Euh, ku mën a xeex la te day calculer day rañaan rañaankat la wax na ci wàllu technique techniquement nee na Boy ñaa ku technique la kuy xool fu muy dem la balaa muy jàpp Tapha également nee na mbër mu baax la ci côté technique ci wàllu staff nee na Tapha Tine est encadré benn groupe bu nekk ci ginnaawam di ko encadré mais Boy ñaa moom nee na staf euh, stafam dañ ko étoffé am na papaam am na ñeneen ñu nekk ci am ñoom Burkhane Wade également ñu ngi ci ginnaawam staf bu étoffé la am ci wàllu force nee na Tapha Tine euh, force herculéenne la yor maanaam Hercule benn euh, acteur la nee na force bu ngande la am noonu la ko waxee. jërëjëf MMA lañ jëm Khadim Gadiaga ancien ancien lutteur nga ne réunir nos force pour monter une ligue moom daal nee na pare nañ pour li nga boole seen doole. taxawal li nga xam te ne mooy kuréel bu am ama am doole ci li nga xam te ne mooy MMA bi. jërëjëf Ndeye Mbacke gannaaw ba euh, rëg-rëg daane kii di Pierre Ngalani Khadim Khadim Gadiaga euh, bañ ko tàllalee micro bokk na ci ay kàddoom nee na ñun dañu war a boole suñu doole ak suñu force ngir créer benn ligue bu am doole jëm ci wàllu MMA ku nekk xam na ne MMA day génne xaalis bu bari Assane. dëgg la Babacar noonu la ko Khadim Gadiaga waxee ginnaaw ba rëg-rëg daane Alain Ngalani. loolu dafa permettre xaadi xaadim Gadiaga ne Sénégal war na am benn ligue boo xam ne nii mën na ci dajale ay mbër pour ñu dem ci MMA bi nee na loolu nag fas yéene nañ ci ànd ak ñoom Bombardier ñoom Siteu ak ñoom Reug Reug ñi nga xam ne nii am nan expérience am nan xam ci wàllu woowu pour ñu mën ànd former ligue boobu Babacar. ba tey MMA Dame Seck instructeur d'arts martiaux nee na Reug Reug a développé des techniques qui peuvent lui ouvrir un un avenir radieux. Mm-hmm. nee na li nga li mu développé mën na ko ubbil. avenir bu baax a baax ci làmb. Ndeye Mbacke noonu nga ko waxee noonu la ki nga xamante ne bii moom mooy Dame Seck xam-xamam màcc jëm ci wàllu arts da tàllal nañ ko micro moom tamit mu wax ci victoire euh, rëg-rëg bi digganteem ak Pierre Ngalani lim ñu xamal mooy que rëg-rëg victoire bii mu am mën na ko ubbil lu baree bari ci carrière am rawatina ci carrière euh, MMA nga xamante ne bii macha allah mi ngi ci dynamique bu baax mi ngi ci dynamique victoire. dëgg la Babacar Dame Seck benn instructeur d'arts la maanaam wàllum euh, xeex ak yooyu da cee xarañ metre la ci moom nag li mu wax mooy ne Reug Reug am na ay techniques yoo xam ne nii mën na ko permettre mu am benn avenir bu rajo biir MMA nee na Reug moom musul am euh, xel ñaar ci combat bi mook ngalaani ndax Reug am na euh, ko am na technique yoo xam ne nii mën na ko permettre kum daje mën na la daan ci MMA bi. tey nañ ci làmb ja silence de l'état Covid 19 li nga xamante ne mooy session 2020 2021. l'arène toujours dans l'incertitude total maanaam làmb ji instant bi xamatuñu fan lañ teg seen bopp. mi ngi noonu noonu la noonu la demee ñu mën a jàpp ne état bi boobu ba léegi waxul dara ci wàllu làmb ji euh, te ñu ngi euh, saison bi mi ngi dem saison deux mille mille vingt vingt 2021 mi ngi dem taxawul xaarul kenn kon mën nañ jàppane ne làmb ji mu ngi ci guddi ga nga xamante ne bii bët setagul. dëgg la Babacar njaxare la waa làmbu am. état bi ba léegi euh, ubbeegul làmb ji waxagul dara Covid bi mi ngi fi euh, saison bi mi ngi dem mais ba léegi dara euh, amuñ benn benn solution boo xam ne ni teg nañ ko pour que làmb ji mën a démarrer loolu nag tiit na ñu bëree bëree bëri foofu la journal bi génn tey nee na daal avenir u làmb ji daal leerul dara. ki journal bi ñëwaat mooy Tombé Sène ancien lutteur mu ne j'ai battu yu déggoon le père de Boy Niang 2 Tombé Sène mi nga xamante ne bi moom moo nekkoon fële ci écurie séeréer di euh, mbër ma nga xam ne ñëpp ràññeewoon nañ ko ci wàllu bëre simple wante ci arène bi ñëw na ci journal bi tey mu ne euh, daanaka ki nga xamante ne bi moom mooy dégal di papa ci Boy Niang 2 wante euh, li mu def ci carrièreu làmbam tamit ñëw na ci ci journal bi wante mën nañ jàpp ne Tombé Sène tey moom moo encadré écurie bi ñuy wax écurie Dalifor di encadré ay xale ya nga xamante ne bi macha allah ñu ngi ci yoonu làmb làmb wante ñëwaat ñëw ñëwaat na ci journal bi tamit ci wàllu carrière am fi mu jaar ñi ko daan ak ñi mu daan ñëpp asan dëgg la Babacar Tombe Sène benn mbër la woon bu nekkoon ci écurie séeréer moom nag dafa xëy séq ak waxtaan wu yaatu journal suñu làmb li mu fa xamle mooy moom daane na papaay Boy Niang mi di De Gaulle ñëwoon na nag ci carrière am nee na mi ngi dugg ci làmb mbapat 1900 tra 83 nee na boobu la commencé def mbapat nee na nag gagné na fa 100 drapeaux ginnaaw bi mu gagné bi mu nekkee ci mbapat mi ba am ci 100 drapeaux yooyu dafa dem ci arène bi mi ngi dugg ci arène bi 1998 nee na Zallo la njëkk a dajal daane ko nee na combat boobu mi ngi xewoon woon bi Mor Fadam di dajeek Moustapha Gueye après loolu combat bi ñëw na ci euh, journal bi ñëw na ci euh, carrière am nee na am na 17 combats 15 victoires ak 2 défaites. ak 2 défaites noonu lañu ko gisee Koña de Ronaldinho. le tournoi des quatre espoirs yi daal ñu ngi mi nga xam ne nar naa jël làmb yooyu yóbbu ko fi nga xam ne mooy Gambia people. mu mel ni yi daal ñu ngi bëgg-bëgg moom mooy jël ko tournoi boobu nga xamante ne bii macha allah tournoi bu ñëpp di xaar la euh, yóbbu ko fële ca Gambia moom daal li mu bëgg mooy jël tournoi boobu yóbbu ko fële ca Gambie li ko waral mooy boobu ba léegi kilifa yi yéeyu ñu yàbbi jëm ci wàllu làmb ci dëgg la Babacar comme que Sénégal moom dara doxagu fi. saison bi kenn xamul kañ lay ubbi yi daal ñu ngi moom nee na bëgg na jël combat Konia 2 ak Ronaldinho délocaliser ko Gambie loolu lay mooy yaakaaram nee na combat boobu nag dina ci teg yeneen ñaari combat yoo xam ne nii ay espoir lan maanaam Yankaw Junior ak Albarka ak Bal Albarka Kayre ak Caatu Daouda Fall ak euh, Kaw Gourdin nee na quatre combats yooyu daal bëgg na ko yóbbu Gambie tëgg ko comme Gambie moom ñoom su ubbi nañ seen saison seen euh, saison commencé na ñu ngi bëre. nga làmbati duxu gaam bi ka am la ko naqari nag mooy caat caat rat l'enterrement de Boy Bambara. mu mel ni caat Boy Bambara mi nga xamante ne suñu papa booy Bambara moo ko encadré ci làmb lu mu xam ci làmb gannaaw yàlla moom la mën nañ jàpp ne eh, enterment suñu papa booy Bambara fekkee woo ko li ko waral mooy daf ko fekk fële ci États-Unis d'Amérique. nouvelle bu naqadi la caat war a am ba mu jotee dese booy bambara boobu ndax caat koo xam ci làmb bi booy bambara nga ko xamanteeg euh, journal bi nag nee na raté na enterrement booy bambara ndax nekk fi woon ma nga euh, états xam naa loolu dina ko naqari lool ndax moom à chaque fois su doon euh, génn ci presse bi dina ci boole bay ba booy bambara pour que ñu jàppale ko. am na lu ko naqari ci kan jëm mooy Tafatine Pape Abdou Fall ak Basirou Babou taxaw nañ fekk nañ li nga xam ne ni mooy enterrement wu suñu papa ji ñu mën a jàpp na ñoom ñëpp ñu nga woon fële ci entraînement suñu papa Boy Bambara wante tamit ñu mënoon fa jàpp mbooloo mu bari. Hmm. li ko waral mooy ki fi jóge suñu papa booy Bambara nekkatul ku ñuy présenté ci wàllu làmb def lu na ci làmb Euh, tàkkusaan bu nekk mu bëri ko fi bëri ak champion yu bëri bi muy génn àdduna àdduna nag mu ngi toll woon ci juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñett ñu mënoon a jàpp mbooloo mu bëri foofu ci armeelu Yoof ñu gunge ko ci këram gu mujj xanaa du nu def rek lu dul ñaanal ko suñu borom yërëm ko te jéggal ko. ni nga ko waxee loolu la Babacar ku woon teewoon mu ngi fa woon mais mbooloo ma bëri woon na trop trop trop. Euh, suñu làmb nag ñëwoon na ñëwaat na si ñi fa teewoon mën nañ ci lim ñoom Tafaati ñoom Pape Abdou Fall basiiru baabu am na pour xaan Wade Kati Diop euh, Père Birahim Ndiaye ñoom Bekaay Mbay bëri na ñi fa teewoon ñëw pour gunge paa bi ci dernier euh, demeure am jama demaat ci gàlle ba tata tatagal waa kër ga jaale leen doog a ñibbi MMA Reug Reug quitte Singapour pour New Reug Reug mel ni mu ngi mu ngi fekk victoire am de mu nga New York instant bi waaw ba mu gannaaw ba mu jógee Singapour uh, daan ki nga xamante ne bii moom mooy Pierre Ngalani di ndam la nga xamante ne bii ndamu Sénégal yépp la uh, jóge na fële ci Singapour dëgmal New York fa la jëm nag ngir préparer yeneen ñeenti combat yi nga xamante ne bii moo ko desee ci MMA bi ñu mën a jàpp ne kon Reug Reug mi ngi préparer yeneen ñeenti combat yi nga xamante ne bii moom moo nekk ci kanamam xam na li koy xaar xam na fi mu jëm te xam na ne combat yooyu du yomb dëgg la Babacar ginnaaw bi mu gagné Pierre Alain Ngalani di Cameroun boobu euh, combat mi ngi amoon sa Singapour vendredi ba le passé journal bi nee ne Reug jógee na Singapour dimanche bi passé mi ngi jëm New York ni nga ko waxee noonu la dese ne ko 4 combats ci MMA bi mi ngi dem pour continuer ay con ay entraînement am pour ak euh, pour mën a ñëwaat plus fort que contre Ngalani. dañuy dem ci nga xam ne journal record record mu ne MMA victoire ah atte ne neen olof Ndiaye nee na ñoppat dompat sax ci sot la bokk. Euh, mi ngi noonu dompat sax ci sot la bokk mi ngi noonu mu mel ni Siteu ku ne xam na ne doomu ndey la ci rëg-rëg ba doomu ñu ne ba rëg-rëg di bëri ji euh, euh, yóbbante woon na ko ay conseil olof Ndiaye nag dafa ne yóbbante galgal ubul làmb wante dompat ci sot la bokk yaa ko wax te ku nekk fa nga bokk daf lay neex Siteu ñu ràññee ko muy euh, doomu ndey ci rëg-rëg ba rëg-rëg di bëri mu jox ko ay conseil ya nga xamante ne bii conseil yu am solo la macha allah te it ba ko rëg-rëg jëfee gis na ci njariñ dëgg la Babacar Siteu ak rëg-rëg ku leen xam-xam ne yàgg nañ ànd Euh, euh, comment Siteu a fait gagner Reug noonu la ko journal record waxee maanaam Siteu dafa dañu dañu dañu waxtaan ñoom ñaar deux jours avant combat bi dañu euh, dañu waxtaan ci WhatsApp Siteu ne ko boo demee jëla dem doxal ci ngalaan ni ba pare lit lit sénégalaise avantage ñoom dun ko xam léegi jëfee loolu di nga ci am ndam ba mu ko defee tamit gis naa ne am am na ci ndaw am na ci ndam loolu la ci journal bi dikkee ne si comment Siteu a fait gagner Euh, rëg-rëg. ay Sénégalais lañ doomu génn lañ dañu sotandoo suñu biir noonu la MMA la ñu des ba léegi ah li nga xam ne mooy combat rëg-rëg année nga la mi sera diffusé le 29 janvier incha allah. mu mel ni ñu doon xaar image yi ci euh, Pierre Ngalani ak rëg-rëg mën nañoo taaxiralu ba ci kanam mu mel ni kon incha allah bu ci yàlla àndee le 29 janvier lañ ko fas yéenee wane Assane incha allah. ni nga ko waxee dëgg la Babacar ba léegi nii am na ñoo xam ne nii gëmuñ sax ne Siteu ak kii rëg ak ngalaani bëri nañ ba pare ndax gisuñ image ñëpp ñu ngi xaar image yi waaye journal bi nee ne image yooyu nag vingt 29 rek leen ko mën a gis maanaam d'ici 4 jours avant boobu kenn mënul am image yi dinañ ko gis li nga xam te ne mooy vendredi incha allah le 29 fii lañ ndar képpee xibaar yi ah maa ngi lay gërëm avant loolu sant la kontaanee la jaajëf eh, kontaane bu baax a baax suñu mbokk internet yi ñu doon topp ci Leewtoo TV yëpp jaajëfal leen bu baax wante jaajëfal équipe technique bi nga xamante ne bii moom la ñuy àndal saa su nekku ci mel ni Mansour Fall caméraman bi nga xamante ne bi macha allah tarkal la kenn du moom merci beaucoup Yacine Fall wante tamit ñu ngi kontaane suñu monteur bi Ousmane Waalo looy tàggatoowee Ousmane Lo Ndeye maa ngi lay remercier di jox dig daje télé internetu Leewtoo TV suba ak jàmm di remercier nag waa Linguère yëpp comme d'habitude ba suba incha allah. jërëjëf Assane Waalo di jaajëfal équipe technique Leewtoo TV yëpp di jaajëfal aussi suñuy internet di leen sant leen gërëm dinañ ñaanal kenn jàmm di ko sàkku ci yéen ba lëkk incha allah.